asalaamaaleykum mbokk yi teel a ajjuma juróom-ñetti fan ci dul qinda muy weeru diggi tabaski di fukkee fukkeelu weer ak benn ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mee ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent juróom-ñetti fan bokkul ci lim yu yi lim bu rafet la kon tey ci ajjuma ji rafet na lii ci gën a taamu mooy ko ca daloo ajjuma sopp nañu ku ci bari julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ku ci jàng saaru kan fi ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma ak njéggal ak jaami àddina ak alaaxira allahuma inni asaluka al afwa wal aafiyata fi dunia wal axira inni asaluka al afwa wal aafiyata fi dunia wal axira xadiisu bis bi yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na ñaar yu ndëgguy jaam bi du seqi ay jéego bis penc ba lu dul ne dañu ko laaj ak dundam ci lan la ko jeexal xam-xamam lan la ci jëf alalam fan la ko faggoo ak lan la ci dépensé aw yaramam ci lan la ko ràppal xaddis bi at-Tirmidi nettal na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tazuulu qadama abdin yowma alqiyaamati xatta yusala an humrihi fi ma afnaa wa an cilmihi fi ma facal wa an maalihi min ayna ktasaba wa fi ma anfaqa wa an jismihi fi ma ablah rawahu tirmidi waxtu julli yi suba waxtu na daan tàbbi 5h26 juróomi waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak juróom benn tisbaar 13h30 benn waxtu wu tegal fanweeri simili takkusaan 16h30 ñeenti waxtu yu tegal fanweeri simili timis 19h30 juróom-ñaari waxtu yu tegal fanweeri simili gee 20h39 juróom-ñetti waxtu yu tegal fanweeri simili ak juróom-ñeent loolu mooy waxtu julli si Touba ak li ko wër